wa rahmatullah vingt wa rahmatullah vendredi 26 février 2021 dañuy ñëw ak yéen ci yëglikaay yi suñu làmb la ñuy xëy dooreete ko yëglikaay bi di suñu làmb nag moom mu mel ne ki tey xëtamu njëkk la mu ca xëy fësal lenn la maanaam combat royal bi war a dox ci diggante Ama ca Pikine ca Parcelles mu mel ni ki nag yi ka xëy di wax mooy Abdou Bakhoum ma nga xam ne moom mooy manaat sewu Ama Baldé Abdou nag moom la nu wax la mu wax boog lenn la nee na combat bi pour pourquoi man a boog lu tax ware su ko mën a def ca Gàmbi nee na ah, man na am ñu def ko sax ca Gàmbi de Abdou Bakhoum nee na lii daal lu war a man a nekk la huis clos ba nag moom lam ca jàpp mooy moo xam huis clos wala ñàkk a huis clos nee na ñoom moom lu mu ci mën a donn taxaw nañu temm jongru Modou Lo ne ko pare nañu bu ñëwee rek ñu defante moom ba mu saf sap Abdou baaxum moo xëy tey waxe nu mel ne kii noonu ñii moom ay nit lañ yoo xam ne wala ay mbër yoo xam ne daal loolu la waay mën a wax moom maanaam ku leen dóor dañuy yëglikaay bi ñëw na ci ñoom muy Eumeu Sène la ca njëkkee ku ne gis na digganteem ak Gris Bordeaux ba ko Gris daanee ba mu ko laajee revanche dafa fay ñu ne déet ne waaye Balla Gaye numéro 2 mu géej way moom tamit digganteem ba ko Issa Pouye daanee premier combat ba deuxième combat ba ca Demba Diop kera itam fayu la def Ama na foofu ak ka nga ne moo di guy gi mu géej way ba ko guy gi ba mu ko laajee revanche am ba mu ko ko joxee ca tournoi TNT ba Ama fayu la def ka nga xam ne tamit moo di Bombardier mu mbuur moom tamit jaar na foofu ak Baboy ba ko Baboy daana ca Thiès kere ca Bercy ba ñu jàkkaarloo fayu la def moo tax yëglikaay bi jàpp na ñeenti mbër yi moom loo ci mën a dégg moom ay dóorkat lañu wala boog ku leen door daal dañuy fayu maanaam réussir nañu ay dóor fayu yëglikaay baa xëy tey wax nu ko kii moom li mu réussir ba yëglikaay bi xëy wax nu ko mooy licence am ba nga xam ne jënd na ko bu dugal ko ci poosam muy kan pap Thialis Faye ma nga xam ne moo jiite Leewtoo ka tëgg tafaatin ak ka nga xam ne nii moom moo di booy Niang moo tax yëglikaay bi nag Thialis ginnaaw ba mu jëndee la nga xam ne moo di licence am nag li am ba mooy pare na fi mu nekk nii nag ngir officialiser combat Tafatine ak Boy Niang sunu làmb moo xëy wax nu lu mel ne ki noonu ki pare moom bu officialiser ay mbiram moo di Abbas Farhat Abbas l'écran wala boog Habib l'écran wala Habib Farhat Habib moom yëglikaay bi ne na jàppal Serigne Ndiaye numéro 2 ak ka nga xam ne moo di Soko Sim yëglikaay bi ne na pare na ngir tëggu ko te mois de juillet itam la ko fas yeneen nag. tëgg loolu mooy li nga xam ne nii daal moom la nu sunu làmb xëy tey wax nu ko ka nga xam ne nii moom loo ci mën a dégg yëglikaay bi ñëw na ci moom te fa nga xam ne moo di ca tuus ya mu mel ni ki nag pare na ngir lan ngir tëgg ca Gàmbi ba tax na nag waa Gàmbi daal ñoom fi mu nekk ni ci dalal ko ak di waxtaan ak moom la ñu ne yëglikaay bi ne na daal jamaykee moom réussir na loo xam ne ni daal beneen paala boo xam ne bu am solo la ci réewum Gambia ndax maire ba nga xam ne nii mooy maireu Banjul daal moo ko dalaloon ci ba ji nga xam ne ci la ñu génn ngir nag loo xam ne ni daal waxtaan ak moom la jamit wax ko la nga xam ne moom la fas yenee def ngir yokk la nga xam ne moo di lambi Gambia maires ba nag nan koy wooyee nen na la maanaam Rocky Malick Ngom daal moo di aw turam yëglikaay baa xëy ñëw tey dinu wax lu mel ni ki noonu waaye itam leneen loo xam ne sunu lamb wax nañ ko muy lit simple ku ne xam na ne fi mu nekk nii daal organiser lit simple bi moom yëglikaay bi ñëw na ca ak itam loo xam ne ni daal maanaam jàpp na ne buñ ko naree organiser modalité na muy demee yëglikaay bi xëy na tey dalal aadama bopp wala wan ñu ko mu wax ca bindu ba moom 64 litres ñoo cay bindu ay journaliste tamit 20 ñooy dugg maanaam ñaar fukki journaliste daal ñoom ñooy dugg fa nga xam ne mooy doon tamit ca arène ba yëglikaay ba yemu ca di itam ba ban heure lay doon 16 heures maanaam 4 heures wàllum Covid ba tamit mu mel ni ki nag am na ay mbër yoo xam ne daal ñu nga commencé daal di abonné wu ngir nag lu jëm ci wàllum daal testu la nga xam ne moo di Covid yi sunu làmb xëy ñëw tey di nu wax boobu xibaar leneen loo xam ne ni moom fa nu koy fekki moo di ca record la mu xëy di laaj mooy tafaatin booy ñang guy gi rëg-rëg maanaam daal question la xëy samp tey ci combat yooyu ak huis clos ba nees di def ak ñaari combat yooyu ñii moom na ñuy def fi mu nekk ni ñu nga ca muy Fass ak Ndakaaru ginnaaw ba nu boolee seeni i doole fas yéenee amal bennub écrit yëglikaay bi nag na fi mu nekk nii daal seenu kayit moom loo ci mën a dégg moom teg nañ ko fa nga xam ne moo di ca taabalu préfet ba maanaam fi mu nekk nii moom daal la déglu yëglikaay ba moo xëy ñëw tey wax nu lu mel ne ki waaye buñ fa jógee moom Equivox la ñuy dem kan fay fekk moo di Fallou Ndiaye Fallou daal mu ngay wax tamit lu leer nañ ci làmb ja nga xam ne moom la fas yéene tëgg suba fa nga xam ne moo di ca Fass Ndiaga Toy ci samedi ji jàpp dimanche ji fa nga xam ne moo di ca réewum Gambia waaye keneen koo xam ne tamit ab promoteur la mu ngay wax fa nga xam ne moo di ca Lutte TV ñu koy wax Prince Sissoko moom tamit seq na fa ak Lamine waxtaan mu ngay wax daal ay waxam yoo xam ne daal yu leer naññ la jëmale ko ci làmb ji yëglikaay yi ñoo xëy tey ñëw wax ñu lu mel ne ki noonu. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokku téléspectateurs yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku seen ci àjjuma ji tey nag ku ne xam na ne ñu ngi ci vendredi le 26 février 2021. ah tey nag maa ngi ñu ngi leen di jéglu bu baax ndax gis ngeen sama rakk ji ma doon toogal sama jigéen muy soxna Ami Diouf tey ñëwul daa am retard waaye nag kon moo tax tey ñu nar fa toog andil leen mbir yi fi ñëw ci làmb ji ñu bàyyi leen ngeen dem déglu revue des làmb ji voilà revue des mu ngi noonu sunu làmb ak record ak ah, Equivox ak fi nga xam ne nii moom mooy Lutte TV tey fu ci nekk ay xibaar tukkee na fa bu fekkente ne sunu làmb na nag tey ci in bi moom lañ fa gis maanaam Abdou Bakhoum boo xam ne moom lañ fa xëy dalal ah, muy xalaat ah nee na moom ah, mën na am ama ak Modou Lo Gàmbi loolu la wax huis clos tamit jàpp na ne moom pare nañu fu mu mën a doon rek ñoom pare nañu huis clos ak ñàkk huis clos Abdou Bakhoum moom moo waxee noonu bu ñu ko waxee nag moom moo yore licence Ama Baldé moo koy engagé mooy manager defe naa loolu mu wax tamit a ah, bu ko waxee ñun nag ñu ngi ñaan combat bi amee fii Sénégal loolu la ñuy ñaan waaw bu ñu sañoon tam du doon huis clos bu ñu sañoon benn combat du doon huis clos parce que dañuy ñaan corona bi dem ba combat yi ñu mën ko bëree te huis clos du am loolu la ñuy ñaan loolu tamit am nañ droit ñaan ko ndax yàlla mi nu sàkk moom nu gomis moo nu ne ñaan leen ma may leen ngeen sant ma ma dolli leen kon am nañ droit ñaan sunu borom bi nga xam ne moom mooy tabaraka wa taala nañ fi jëlal mbas mi ba xam ne lépp lu nit bëgg organiser te mu dëkkoo dëppook yoon nga organiser ko te benn ngaañ bañ ci benn lor bañ ci am kon loolu la ñuy ñaan si làmb ji waaye tamit bu ñu demee ba loolu sës tamit comme li Wolof di wax rek ku amul yaay nàmp maam waaw wala yaa fi taxafalu loolu tamit dinay am waaye nag yàlla bu ñu yegg foofu daal waaye combat boo xam ne daal xam naa ne moom foo ko tëggee fu Séné foo ko tëggee dina neex ci àddina bi ama muudu waaye fi muy dàqe nag mooy fii ci Sénégal loolu mooy li am Abdou Bakhoum moo ñëwee noonu tey ñeneen ñoo xam ne tamit soriwuñu cercle boobu ndax mu Eumeu Sène lañ ñu xëy andil Balla Gaye Ama Baldé ak Bombardier muy ñeenti mbër yoo xam ne yëglikaay bi ni mu leen jàppe mooy maanaam dóor fayu dañ koo man wala boog dañ koo def ci seen carrière muy lu leer nañ ndax ku ne xam ne yaa ngi ku ne yaa ngi fàttaliku diggante ma seen ak Gris Bordeaux premier combat Gris da ko daan ci Demba Diop ñu ramassaat ci Demba Diop Eumeu fayu ci combat bu metti woon bu bëri woon xeex bari woon nàcc-nàcc waaye yàlla def Eumeu yóbbu ndam la kon foofu Eumeu daa fayu revanche am Balla Gaye tamit ku ne yaa ngi fàttaliku diggante mag Issa Pouye ca seen début carrière Iba Mar Diop Issa Diop ba kër dañoo bëree bëree bëree bëree bëree ba bay raam Gomis ñoom ñaar Balla ak Issa yaa ngi dégg ñu jóge ca Issa am ca ndam waaye ñuy liggéeyaat di liggéeyaat ba ñu tëggaat seen combat yaa ngi dégg fa nga xam ne moo di ca stade Demba Diop Gaston Mbengue defar lu mel ni ki noonu keroog defe naa tamit gis nga fañ mujjee Balla dafa fayu ca kaw Issa Pouye ba tey Ama Baldé itam ku ne xam na ne diggante ma guy gi ah dañu bëri woon combat bu métti ca Demba Diop. ki nga xam ne moo di guy gi daan ko ci combat bu intense bu tar bu bëri woon bëree yàlla def ama ñàkk ñu ravançaat ci tournoi tente ci biir tournoi ba guy gi ama am ci kawam ndam mu nekkoon combat revanche beneen revanche boo xam ne ni keneen koo xam ne tamit joxe nañ revanche gañe ko wala laaj jox nañ ko revanche mu gañe ko muy bombardier diggante mag baabooy si di jaxatee ko tëggoon ca Thiès defe naa kera kenn du ko fàtte dafa taw rek tibb tànk ba dëj ko bombardier ñàkk dara bopp ba waaye yàlla doxaat di doxaat ba ñu ramasse ca Bercy gis nga kere fañ mujjee Bombardier dafa fayu kon ñoom ñooñu ku ci ne tàmm nga fayu revanche loolu yëglikaay bi moo gën di muy loo xam ne nag loolu mooy làmb ndax làmb moom mayente revanche da cee am mbër di ko daan deux fois ngeen dem troisième combat mu fayu nga daan ko premier komba ngeen ñëw mu fayu nga daan ko mu laaj rawaas tamit nga daanaat ko loolu lépp day am ci làmb parce que làmb moo demee noonu sport la boo xam ne loolu mu bokk na ci sarme yi nga xam ne ni tax na nit ñi di ko gën di seetaan rawatina yenn revanche yi nag beneen euh, combat boo xam ne moom du revanche combat jànq la bu ñëpp bëggoon muy tafaatin ak booy ña ngi yàlla jox ko waa Leewtoo rawatina Pape Thialis Faye hmm? defe naa moom tamit yëglikaay bi xëy na ñu xam ne licence dina ko mu ngi ci poosam mu dugal moom ca Pape Thialis kon daal yëglikaay bi jàpp na ne kon ah nekk nii moom pare na moom ca Thialis boobu Tapha Tine ak Boy Niang ñu neen ko koy yàlla def ba mu réussir loolu parce que tamit tëgg na combat boo xam ne képp kuy dund làmb wala nga bëgg làmb rek bëgg nga combat Tapha Tine ak Boy Niang promoteur yëpp bëggoon nañ ko mais moom la yàlla sëgalee mu tëgg ko kon ñu koy ñaanal yàlla mu réussir ko ci licence boobu nga xam ne nii dagg na ko ak yeneen combat yoo xam ne nii xam nga war na ko mën a tëgg parce que déggoon nañ ko ci diggante euh, Garga Mbossé ak ki nga xam ne nii moom moo di Sa Thiès muy kooku di Pape Thialis Faye suma ancien DC ma koy nuyu di nuy waa Leewtoo bi yépp waaw ba tey bu nu continuer ci yëglekaay bi dañuy ñëw ci li nga xam ne nii ah moom moo di wàllum ba tey làmb ji ak Habib Farhat Habib l'écran comme ni ko gars yi xamee waaw parce que tur boobu la nit ñi gën a xam moom moo tëgg combat Serigne Ndiaye ak Sokosi moom nag dafa waxoon keroog bi ñu génnee ci réunion CNG bi ne pare na pour huis clos loolu la waxoon ah ñu koy xamal ne ko nag combat boobu moom xam naa itam combat bu ñëpp soxla woon la combat bu jafe woon a taxawal moom la ko yàlla wërsëgal mu taxawal ko moom Habib Farhat mu war ko mois de juillet loolu la ñu yëglikaay bi wax ñu koy ñaanal yàlla yàlla nañ ci yëg ak jàmm ko ba boobu combat leneen loo xam tamit dañ ciy ñëw muy test covid 19 yeeg mbër yi abonné ak yooyu mu mel ni ki daal jéglikaay bi ñëw na tey xamal ñu ne daal ah euh, loo ci mën a dégg test yi moom aadama bopp lañ ñu won 64 litres daal yoo xam ne ni ñoom lañu autorisé ci compétir yi 20 journalistes arène nationale hmm, waaw waaw loolu daal yëglikaay bi ñëw na ci ak 10 ci stade yi ak démarrage li nga xam ne ni moom moo di Euh, làmb yi di war a commencer 16 heures yooyu yëpp yëglikaay bi ñëw na ci ak ki nga xam ne mooy le le porte parole du CNC di monsieur Adama boobu muy ay mbir yoo xam ne ni daal yu jar a bàyyi xel la lii yëpp nag li ko indi rek mooy coronavirus bi ñu xam nga yëpp moo ñu ko yóbbee ñuy ñaan yàlla mu jeex ak jàmm keneen koo xam ne tamit suñu euh, doomu réew la wala doomu Sénégal bi yàlla ñu koy wax jamaïcain moom ku ne xam na ne war na tëgg làmb fa nga xam ne moo di ca Gambia. yaa ngi dégg yëglikaay bi nag ñëw na ci tuus yi wan ñu ko ak ka nga xam ne moom mooy maires bu fa nga xam ne moom moo di gàmbi wala bokk moo di maires su Banjul Jamaïcain di Rocky malik Ngom moom moo daloon jamay Jamaïcain nag mercredi bii nu génn àllarba maanaam muy poids bu am solo ci jamay keek carrière am parce que tamit xale la boo xam ne am na ambition am na lu mu bëgg suñu rakk jooju ñu ko ñaanal yàlla tamit vraiment yàlla na yàlla def mu réussir li mu sumb yépp ci làmba di nuyu waa Gambie yépp parce suñu ay soppee ngi fa ñoom Jibal Touré ñoom Père Ndongo Cissé ak képp kuy doomi Gambia rek ñoom Paate Gambia ah, xarañ bu Gambia ñoom ñëpp duma leen fàtte maa ngi leen di bégee bu baax di nuyu askanu question lañ ci samp ak huis bi ah li ñu ñaan daal mooy combat yooyu yàlla na am ak jàmm rek te buy am itam yàlla na fekk huis bi dem rek man daal huis clos bi dama bëgg daal corona bi dem ba huis clos bañ am ndax combat yii moom wax dëgg yàlla ku koy seetaan euh, seetaan ko ci biir terrain ba dana neex trop ci kiy dundu làmb waaw ci ki mën a dem te bëgg dem dana neex trop muy bés yu nar a neex euh, Fass ak Ndakaaru mu mel ni seen euh, dossier teg nañ ko ci table préfet xam naa nag loolu xëy na pour xam naa pour seen vision bi ñu doon wax ak mel ni ki noonu ak entraînement yaak yooyu ah ñu leen di ñaanal rek comme ñoom lool la ñu gis ba def ko ah day olof ne na mbooloo mooy doole yàlla na ngeen ci jëlee ndam mu yëgri Fass ak ngiri Ndakaaru ci seen mbooloo moom nga xam ne def ngeen ko record wala boog Equivox su ba tey buñ buñ jógee record dem Equivox su moom lañ fay fekk mooy Fallou Ndiaye ak li mu nar a def suba si samedi ji jàpp dimanche le 27 ak 28 fa nga xam mooy ca Fass Ndiago Coy 1 million 250 mille yoo xam na leeral na lépp ci biir Equivox ci na mu mu ñamu mu fay sargal ak ñamu tudde mbir ak lépp ku ci ne ñëw ne ci la tax mu tuddee la ko ak la tax mu lay sargal te loolu tamit lu am am solo la ba tey prince tamit bu ñu demee fekk ci Lutte TV moom tamit mu ngay waxtaan ak Lamine waxtaan woo xam ne seqoon nañ ko muy waxtaan woo am solo mel ni kon daal loolu moo fi ñëwoon tey ci wàllu làmba ji gomis ma lay bëggee di la ziar di nuyu Habib mi nga xam ne nii moom mooy Habib Seck di doomu Saalum di ko ñaanal jàmm moom tamit ah di ko bëggee bu baax a baax parce que gis naa ne daal borom baax la te loolu moo am solo di ko ñaanal jàmm waaye tey nag di wax happy birthday to you ki nga xam ne nii moom moo di soxna Awa Kamara ah di di di di di do di di doomu réew mi soxna Awa Kamara yaayi Mohammed parce que kooku faw ma nuyu ko hmm? di soxnaas ki nga xam ne nii des fois day jàpp ci suñu liggéey bu baax a baax du ma ne sax des fois madame Fall soxna Awa Kamara yaay Mouhamed madame Fall di soxna si nga xam ne mooy Assane Fall borom global textile nekk fa nga xam ne moo di ca parcelle sin ca côté sapeur maa ngi nuyu sa soxna di ko ñaanal happy birthday to you moom suba lay fête anniversaire am boroom la 27 février soxna wa Kamara suñu séeri yaayi Mohamed séeri Assane Fall dundal ba say may di baawaan barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam di la nuyu di nuyu sa borom kër di nuyu waa Parcelles Assainies yëpp 1 ba 26 di ñaanal ñëpp jàmm mais di tamit fans club Babacar bi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp leen di nuyu di leen bëggee mais di nuyu ñoo xam tamit samay soxna lañu ah, du mën a ñàkk euh, Gomis samay soxnaay mag lañu mën naa ci lim ku mel ni Awa Ndiaye ah di soxna Sall Thiam di tamit ka mu seqal borom kër di maam jaara aw Ndiaye maa ngi koy bu baax di ko ñaanal jàmm moo nekk moom tamit vraiment jigéen ju baax a baax ju jàppale borom këram maa ngi koy bégee séeri Sall Thiam bu ma ko waxee nag mooy Sall Thiam Diouf la sant mais noonu mu gën a siiw di ko jaale yaayam di fi jóge bu yàggul moom Sall Thiam suñu yaay soxna Diibu Sall yàlla na ko yàlla yërëm taxare ko aljana waaye tamit di nuyu Kumba Thiaw madame Niane Seydi Pape Niane moom tamit maa ngi koy nuyu ak ka nga xam ne moom la bokkal borom kër muy Siga Ngom ñoom ñëpp ñu nekk ay jigéen yoo xam ne yu jàmbaar yu bëgg seen ay borom kër lañu ak di ak ki nga xam moom mooy bisu madame Thiaw moom ñetteel la maa ngi koy nuyu di nuyu aaw ñaareelam di nuyu aawam di nuyu seen borom kër suñu grand frère Ablaye Thiaw borom Mbomboy Baas di ko nuyu bu baax a baax ak waa étoile musique rawatina Ousseynou Thiaw di nuyu képp koo xam ne tey daal doomu Mbomboy nga maa ngi lay ñaanal jàmm di ko sàkku ci yow ndax foofu fa la yaay dëkk yaay dafa foor ci doom kon di ñaanal sama yaay yàlla na ko yàlla jégal xare ko aljana mook bépp julli bu tëdd ci suuf di joxe di dig daje rek ci yeneen mbir ci beneen ah,